asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi bëgg ñëpp di jaar bu baax a baax di jaajëfal gars yëpp di leen fàttali rek ne yéen ngi seen biir canal Amzo TV officiel ñu ngi si jaajëfal gars yëpp di bëgg bu baax a baax ñëwaat ak yéen si beneen astuce rek comme nañ ko daan defee si tuto yi rek ñëwaat ak yéen si application bu fiable bu xamante ne si ne day sécuriser sa téléphone même personne sax bu xamee ne dafa xam sa mot de passe du mën a utiliser sa téléphone dara quoi léegi dañu ñëw wan leen ñu dugg Play Store ñu wan leen application bi ndax nga koy télécharger ba installé téléphone ba naka lay fonctionner sa téléphone ba ku xam sa mot de passe sax du si mën a utiliser dara soo ko defee léegi dañu ñëw dugg Play Store ñu wan leen application bi dugg nañ Play Store ni suñ duggee Play Store yaa ngi sa accueillir Play Store ni tout léegi soo ñëwee sa ak kiiru Play Store nii da ngay ñëw fii si barre de recherche bi soo bu duggee ci barre de recherche bi nga recherche touche protecteur ñu bind touche nga def espace oh, pro cabine protector ñu def nii ñu def recherche automatiquement boo defee recherche rek application bi moo nekk nii ci kaw te application bi diisul tamit aussi moo nekk nii ci kaw boo xoolee moo nekk nii application bii la quoi yow nag bu ñëwee fekk na ñun nag dañ kaa installé ba pare mais bu ñëwee fekk installé ko da koy def installé mu installé wu quoi application bi moo ngi nii. application bu viable la te baax na noonu te mën na sécuriser téléphone su ko defee léegi dañuy ñëw def offrir ñu wan leen naka ngay utiliser application bi sa biir téléphone naka lay fonctionner léegi dañuy def offrir ñu ñëw wan leen soo defee ofrir moo ngi nii day laaj nga autoriser ko pour téléphone bi nga def ok boo defee ok fii mi ngi lay laaj pour nga autoriser téléphone bi maanaam fonctionner si téléphone bi nice su ko defee léegi da ngay coché fii mu autoriser ko autoriser nañ ko ñu def derrière arrièreat ñu autoriser nañ ko pare léegi day kenn ñu dugg si application bi boo xoolee mi ngi nii tous producteurs afon mi dugg application bi moo nekk nii bu nekkee nii léegi da ngay pousse nii ba si deuxième bi nii nga dugg si deuxième bi musique anglais la boo gisee nii yaa ngi nii si application bi si deuxième bi nii sooku locking mi ngi nii si kaw bii si kaw dalay wax na nga kose fii boo kose fii booy eh, defee téléphone bi boo ko yëngalee rek automatiquement téléphone bi day tëju quoi kenn du si mën a manipuler dara su ko defee dañuy kose fii bi si suuf mi ngi def su or locking mi ngi lay wane ni shock or locking bi si suuf tamit da lay wax na boo yëngalaatee téléphone bi affaire bi dañ ko nga mën kaa manipuler nga defe mu amit dañ koy kose ñu wal leen ñaar yi daal boo ñëwee fii si deuxième bi ñaar yi ngay kose si kaw da lay expliquer yëngalee téléphone bi rek automatiquement day tëju kenn du ko manipuler kenn du si def dara bi si suuf da wax ne la heure boo ko yëngalaatee mu deñ ni nga koy mën a manipuler waat comme ni nga ko def su ko defee léegi dañuy génn ñu wan leen naka nga koy manipuler naka nga koy def ba soo ko yëngalee mu taju boo ko bàyyee mu boo ko yëngalaatee mu tëj. léegi ñu ñëw wan leen comme que testé nañ ko pare ñu ñëw ñu def leen waxoon ñu yëngal téléphone yi ba xam boo xoolee téléphone bi suñu manipuler tey dox naaj mais automatiquement rek buñ ko yëngalee. doo sewati mën a manipuler dara dootoo mën a manipuler dara si téléphone bi boo xoolee fii nii si comme mi la defal lu mel na saaru benn ba benn flash lu wër téléphone bi loolu mooy protéger téléphone bi boobu doo si mën a manipuler dara boo ko defee léegi ñu xool gis nga boo yëngalaatee automatiquement li ka tase woon ba dootoo dootoo si mën a manipuler day dañ quoi automatiquement boo ko defaatee nii yaa gis dootoo si mën a manipuler dara application bu fiable la te defe naa utile si téléphone te ñu bu ñëwoon dindi woon sa mot de passe sax dootul mën a manipuler ti dara si téléphone bi quoi yaa ngi gis boo yëngalaatee da ngay mën a manipuler nii défiler nii sa téléphone bu la neex nga défiler nii sa téléphone nu la neexee nii mais automatiquement boo ko yëngalaatee yaa ngi gis dootul téléphone bi du doxati dara quoi. yaa ngi gis nii boo defaate nii automatiquement day daj application automatiquement la boo yëngalee rek day daatu téléphone bi dootoo si mën a manipuler dara dara automatiquement boo ko defee nii dootoo si man dara dara gis yaa ngi gis doo mën a dugg fenn sa téléphone bi day daati bëlen bi lépp doo a dugg fenn automatiquement boo defee nii rek day la yaa lan leen andiloon seen biir canal Omzo TV officiel di wax ne bu leen fàtte abonné bu seetaan vidéo bi fekkee am na njariñ nga partagé ko say yeneen ami da ngeen aimé vidéo bi ndax ngeen gën man mën a yombal suñu liggéey bu leen fàtte abonné seen canal Omzo TV officiel bés vidéo jamono bi ak cloche de notification bi pour ngeen bi bañ a tardé suñu yeneen i vidéo à la prochaine vidéo incha allah